élection législative donc mosuñoo ànd ak le président Macky Sall ci ay élection bu mënti doon man mosuma votel Benno Bokk Yaakaar ci benn élection euh, donc lu yàggul ça fait huit mois booy xool ci bi ñu àndee moom donc peut-être suñu suñu euh, activité suñu présence sur le terrain mooy defe ne ñu bari defe ne yàgg nañ mais le président Macky Sall bien après les élections législatives ñun la ñuy a ànd ak moom li am solo ba am solo mooy Benno c'est un appareil boo xam ne appareil politique appareil électoral bi ñu yor machine électorale bi ñu yor du caaxaan boo xoolee 2012 ba 2023 élection yi fi am nga xool bennoo électoral li ciy changé 2 3 pour lay nekk parce que Macky Sall ce qu'il réussi mooy zone yi nga xam ne ne dafay faible en général day xool nu muy nu muy créer benn beneen alter ay alternative pour jéem a di combler vide boobu te en général parti au pouvoir électorat am ñi koy di votel day nekk un électorat très fidèle ba nga xam ne ne tey ñooñu boo xoolee si CMU ak eh, yeneen yeneen yeneen yeneen eh, kii yi nga xam ne ne le président mu ngi koy def si loolu mooy tax électorat bu ci bari day nekk électorat boo xam ne pour mu changer ba ba le président di wàcc boo xoolee le président Abdoulaye Wade même bi muy wàcc amoon na benn 35 pour cent ba 40 pour cent ñoo xam ne dañ koy toog donc le président Macky Sall ce sera la même chose donc électorat Benno moo tax dafa am doole dafay nekk un électorat fidèle dañoo am ay ministre dañoo am ay député dañoo am ay maire dañoo am ay directeur ñooñu kenn ku ci nekk da ngay am loo xam ne ne téye ko au niveau de ta base maintenant li nga wax noonu tamit. question bu question question non c'est pas statique nee naa la day day ñu bëri dañu jóge seen bopp ñu nekkoon ay ministre nekkoon ay député nekkoon ay maire ñooñu bu ñu demalee seen bopp nga bëgg ni électorat bi. waaw mais xam nga ñooñu bu ñu poussé xoolal ñooñu bu ci poussé ay responsable mais dama ne leen jëlal boo jëlee ministre ma ne boo jëlee jëlal dama lay jox benn cas simple boo jëlee kaw Kolda mam booy dafa ñëw ñu indi booy bu ko gën a tàng gën ko wex sur le terrain boo gisee la muy mobiliser waaw mais loolu lañu gis dama lay wax li ma gis ci terrain bi keneen mën na gis leneen man li ma gis loolu wax nga gis ni muy doxee ak ni muy def nga jël yeneen département yi c'est la même chose dañuy kenn day génn ñi tegal la ki la fa donc moo tax ma ne la ça donc loolu sax du kii bi mais c'est pour répondre à effectivement am na ay problème le président Macky Sall wax na ko mais le président Amadou Ba boo xoolee ci programme am dafa wax ne li ko soxal mooy bu jëlee réew mi fexe ba amul kii Pastef la bokk amul kii ci Déthié Fall la bokk amul kii euh, beneen parti la bokk day dajale Sénégalais y